les ministres Birame Souleye Diop ak euh, le ministre Alioune Sall di leen dalal jàmm euh, lu ñu mën a wax mooy ni assemblée nationale euh, lu ñu fi gis tey yaakaar naa ni du sérieux lu ñu fi gis tey du loo xam ne méngoo na ak suñu charte yi tey la sabotage la ak yëfu xale donc maanaam ñuy gedd parce dañu convoqué woon depuis une semaine bureau bi moo daje conférence des présidents daje convoqué nañu ne ñu nañu ñëw participer débat d'orientation budgétaire tey le 29 juin conférence des présidents également daje ñu fixé date bi député yi groupe parlementaire yi préparé ko sérieusement ñun ñu tenir ay séminaire préparé suñu intervenant yi seddoo temps de parole bi tey débat d'orientation budgétaire bi amoon nañu ñun député yi lu tool si juróomi waxtu yoo xam ne dañu waroon débat 300 minutes loolu nañu amoon gouvernement bi temps de parole am 45 minutes la te ñuy xamal ni sénégalais yi débat d'orientation budgétaire séance d'information la mooy du gouvernement bi dafa am benn document ba nga xam ne moom lay préparer loi de finance bii di ñëw année prochaine 2025 document boobu nañu naan document de programmation pluriannuelle économique et budgétaire DPBEP moom la ñu woo ministre des finances ñëwoon pour présenter ñu ko suñu ko présenter ba pare ñun en tant que député ñu wax suñu xalaat ci orientation économique yi ak budgétaire yi nguur gu bees bi ñëw ñu présenter ñu donc am na ay orientation yu am solo yoo xam ne ci projet bi jëmmal na projet du président de la république Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko ñun nag préparer woon nañu ñoom Benno Bokk Yaakaar amoon nañu cent cinquante trois ñoom ñun amoon nañu soixante seize minutes mais ñu tàggat suñu membre groupe parlementaire yi pour tey ñëw soutenir le débat un débat technique débat boo xam ne dina jëriñ Sénégalais yi mais comme que amuñu argument comme que duñu liir document yi comme que ñoom ministre yu fi doon ñëw tàggaate nañ nañ fi nekkee woon léegi régime bi changé na mënatuñu tàggaate donc euh, amuñu euh, ñu saboté ñu ne léegi ñoom dañuy annuler débat d'orientation budgétaire ba xam na ñoom ñu ko fixé woon ñoo dajewaat tey annuler ko te nuñ ko anam ñu ko annuler moo doy waat parce que ñu convoqué la yónnee la message message nañ lay convoqué WhatsApp message WhatsApp nañ ñu convoqué minuit nañu yónnee suñu kii nañu présenté wu leen à 9 tey assemblée nationale am ngeen réunion bureau à 9h ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw 9 toog ci salle bi di xaar président de l'Assemblée nationale dix heures la dugg ci saal bi jéggaluwul excusé wul ñëw commencé liir benn document boo xam ne dicté préparé la dañ ko ko bindal parce que moo ngi koy lire sax amoon na ay jafe-jafe donc ñu xam ne dinaan naan woy assemblée nationale dañ ko offensé assemblée nationale dafa am ñu tenir ay propos discourtois premier ministre wax na lii premier ministre wax na laa ñu ne ko d'accord mu ne léegi léegi dañuy xool ndax débat d'orientation budgétaire bii ñu programmé woon mën nañ ko tenir parce que gouvernement bi institution collégiale ministre des finance su ñëwee daa mel ni gouvernement bi yëpp a fi ne ñu ne ko yow lu ngay wax ak euh, décision mu nga bëgg a jël ni amul benn rapport amul rapport parce que lu ngay lu ngay da ngay jaxase parce que lu ngay wax ni déjà nu nga présenté fee dameewul noonu assemblée nationale kenn offensé wu ko lu ñu wax mooy ni defaraat leen seen règlement intérieur ma ñëw def sama déclaration de politique général te euh, premier ministre lu mu wax moom la député yu bëree wax moom la groupe parlementaire Yewwi Askan Wi wax moom la du Lamine Diallo wax moom la yeneen groupe parlementaire wax ak ñëpp ñoo xam ne am nañu xam-xam ci wàllum droit ci dëkk bi loolu nañu wax na député yi daje. mettre à jour seen règlement intérieur dugalaat ci premier ministre dugalaat ci déclaration de politique générale dugalaat ci motion de censure dugalaat ci question de confiance en outre yow euh, ndaje bi nga woote bureau bi ñun déposé nañ fi ay proposition de loi déposé nañ fi ay demande de commission d'enquête parlementaire ak yeneen ak yeneen problème mu budget assemblée nationale bi war nañ ci wax problème mu règlement intérieur bi war nañ ci wax yooyu yëpp waxoo ci dara ñu ne wéy euh, liir naa ci presse bi benn euh, déclaration premier ministre nga convoqué bureau donc ça veut dire que si ay caaxaan nañuy doxee si maatay nañuy doxee ci tappale nañuy doxee te lu si gën a garaaw mooy ni euh, bureau bi nu mu ko convoqué il a fallu que Abdou Mbow sant ko mu convoqué bureau bi à la suite d'une conférence de presse de Benno Bokk Yaakaar mu convoqué bureau bi à minuit ça veut dire que dafa convoqué sous la pression mais du yëfu loo xam ne moom moo ko def du sañ-sañu boppam donc dañu ne ñun lu ñu bëgg mooy am un président de l'Assemblée nationale mais pas koo xam ne gumba bu ñuy diriger wala koo xam ne marionnette la boo xam ne fu ñu ko nee jàddal mu jàdd foofu. alors tey taxawaay bi lan lay taxawaay bi mooy ñun en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi lu ñu doon wax moom la ñuy waxaat mooy ni réglement intérieur bi bu frauduleux bi ba nga xam ne dañ ko falsifié ba nga xam ne dañ ko jalgati. boobu nga xam ne moo ngi circuler nañ ko retirer beneen bi lépp loo xam ne moo jëm ci premier ministre jëm ci déclaration de politique générale motion de censure question de confiance nañu daje député yi delloo ko ci règlement intérieur bi nga xam ne su boobaa premier ministre dina mën a tenir sa déclaration de politique générale dans des conditions de sécurité juridique loolooy wax ji te wax jooju nag ñoom nañu bëgg a bañ a abordé en réunion de bureau président depuis novembre 2022 bëggul tudd règlement intérieur tey dégg ngeen ko ci discours am waxul ci règlement intérieur ça veut que moo ngi daw dis moo ngi daw débat boobu te xam na ni ñu ko def ci kaam nañu bokk donc moom responsabilité mooy mu bàyyi par parlooy ñu bàyyi tappale yi ñu bàyyi caaxaan yi ñu jublu ci liggéey bi parce que assemblée nationale ñu kaa jox vingt milliards at bu nekk mais mu ñu bañ a liggéey assemblée mi nga tëj ko nga ne ko c'est en travaux depuis mars nga bi waat ko juin député yi nar a ñëw wax ak askan wi nga ne noonoo da nga leen di tere da leen di tere wax ak askan yi parce que yow sa groupe parlementaire bu ñu bokk amuñu argument amuñu lu ñu wax ah amuñu programme amuñu amuñu dara. responsabilité bi daal ci assemblée nationale la am. assemblée nationale gouvernement bi ñëw na présenté wu na. convoqué nañ ko ba ñu ñëw toog distribué nañ ñu document bi jàngat nañ ko ba xam lu ci ne ministre de l'économie ministre des finance dafa waroon ñëw rek présenté ñu benn résumé débat bi amul benn conséquence ci gouvernement bi lu muy liggéey débat bi ñun suñu règlement intérieur la nekk article 3 du règlement intérieur ak loi organique relative aux lois de finance loi yi loi de finance ñun ñoo koy voté débat bi ñun lay jëriñ askan wi lay jëri donc suñ ko anu ñun suñ ko annulé liggéeyu gouvernement bi day continuer du am dara lu lu ñu ciy gàllankoor du am dara lu ñuy tere gouvernement bi daf député yi kay nañu tere wax député yi nañu tere daf seen liggéey te loolu ñun nañuy ñaawlu loolu nañuy dénoncer parce que tey ñun ñoo amoon temps de parole ba nga xam ne dañuy wax ak askan wi informer ko ci programme gouvernement bi ñoom lu ñu peut lu ñu lu leen merloo mooy tey ñoom suñu suloon seen sañ-sañ élection ya décembre 2024 dañ koy tenir parce que bu ñu fiy mujjee dajee rapport élection nañ fi doon wax te président bi moo ko jiite woon ak ñoom Abdou Mbow naan report des élections décembre 2024 donc loolu ñu dem élection ñu baat leen à plate couture au premier tour tey ñu ne léegi projet président bassiru Diomaye Faye nanguwuñu ñu présente ko assemblée nationale sénégalais yi dégg ko loolu la bañ parce que amuñu argument amul nee nañ Bassirou Diomaye Faye amul projet tey ministre des finances ñëw ak projet président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ne da koy présenté ñu ne ñoo bañ duñ leen déggu Sénégalais yi loolu nañu war a xam donc ñoom ñoo deful seen liggéey en tant que député ñoom ñoo respecté wul assemblée nationale ñoom ñoo respecté wul institution ku bëgg ñu respecté la da ngay respecté sa bopp respecté sa bopp mooy nga respecté sa règlement intérieur waaye li ñu def nii violation règlement intérieur la violation loi organique relative aux lois de finances ñun nag groupe parlementaire Yewwi Askan Wi taxawaay bu ñu amoon ba léegi ci moom la ñuy continuer xeex xeexal askan wi taxawu askan wi pour vraiment Sénégal jëm kanam. jërëjëf loolu jërëjëf. merci